mbokk Sénégal tey jii nag ñu nar a waxtaanee ci wàllu ndoxum siti ndoxum siti nag feebar la bi nga xam ni ci deru doomu aadama bi lay gën a feeñ donte ndoxum siti nag dana feeñ ci biir mais dana feeñ ci biti mën nañu wax ne soixante quinze pour cent ci ni muy manifesté woo ci der lay manifesté woo exemple jigéen bu tëw am doom ndoxum siti mën na nekk ci butitu njurukaayam am na jigéen ñi xam te ne dañuy am ay kyste dañu am fi buuram dañu am ñoom te loolu buñ ko seddoo ba ci biir it ndoxum siti dafay bokk ci li nga xamante ni dafay am yan xeetu feebar moom mooy am ci der ndax xam nga baalu ndoxum siti ay maladie ay maladie vénérienne ay syphilis endémique la wala yenn infection yi mën na ko indi ay lésions ak ay démangeaisons maanaam ay picc yi nga xamante ni day am ci yaramu doomu aadama ni muy manifesté woo comme ni ma ko waxee sànq dafa bari ñenn ay picc la leen di jox ñenn ñi heure la leen di jox ñenn ñi seen yaram da koy ñaral ñi ci des seen yaram da koy xar tànk yi day xar seen wey yi day lakk di ñuul ñenn ñi day jàpp seen bët ñi ci des ndoxum siti dina jàpp ci seen baat ci seen put kon nag ndoxum siti dafa nekk lu yaatu ndox la bi nga xamante ni dafay kuule wu ci diggante der bi ak deret ji foofu lay dox mais fu ko nekk ci nit ki mën na fa génn. salaamaaleykum sëriñ bi nanga def ça va. mos naa mos naa commandé euh, benn dose euh, kii euh, ndoxum siti bi bon mu ngi tane bu baax a baax a baax looloo tax dama bëgg am beneen dose parce que ndoxum bi siti bi dafa dafa yàqoon sama yaram bi yëpp looloo tax dama bëgg a jël beneen dose ak savon savon bi savon bi laa doon bëgg a jëfandiku quoi. bon dama bëgg encore yow ndoxum siti bi dama yaakaar dafa yàgg sama yaram loolu tax ma bëgg am beneen dose jërëjëf. Euh, ni am ñoo xamante ni euh, seen awra day à tout moment day tàng dañ koy wokk kon nag képp ki nga xamante ni yàlla boole nañoo ak yow rek ci kàttanu yàlla ak baaxam a yërmandeem après consultation dinañu mën a xefe xam. sa jafe-jafe boobu nga am nan nañu mën def ba jàppale la ci loolu incha allah. li nga xamante ni moom mooy favoriser apparition wu ndoxum siti lolou mom lek déjà bokku na ci li koy gën favoriser yenn alimentation yi ñun nak euh, Sénégal suñu alimentation dafa dafa gras bu mu ëpp te ndoxum siti bëggul bëggul lu niin soow daf koy favoriser bu baax dafa yokk ndoxum siti euh, gerte kemb day yokk ndoxum siti ci rek meew boo ko rek automatiquement dafay favoriser ndoxum siti bu baax lek yi ñuy faral di lek dafa bokku ci li nga xamanteni moy tax ñun Afrique wala Sénégal ñun dañu bokku ci ñu ëpp ndoxum siti ci àddina ñun sénégalais salaamaaleykum sëñ bi su li ngeen ne mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax ma ngi nuyu di leen jaar lu bëree bëri teen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal def ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de li ma doon dund ay at mauvaise haleine ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni ni sax balaa may egsi si man laa nuyu wallaahi mënuma sama yitte yépp laa daggoon wallaahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallaahi ngeer sax lu ne luñ ne baax na rek ma baxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine yi fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indi bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex bu mel ne daa gën a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog a xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit normal fi ñu toll gëmewuma ko sax nag wallaahi gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla na yàlla fay gën a wéral cëriñ kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf. te itam xam nga nga nekk jigéen war a rafet yàlla dogal sa kanam di am ay tache sa kanam am ay ër xam nga loo saabu boo sangoo mu allergie la diw boo diwoo mu yàq sa yaram te ndoxum siti moo ko waral te fekk ni am na consultation yoo doon def traitement yoo doon jël ci benn un mois yàlla dimbalee la ndoxum siti boobu mën a dañ loolu am na solo. Euh, bu dee xale itim loolu itim dafa nekk li xam te dafay feeñ ci ñoom ndax ndoxum siti toppub sët la moom sa maam sax da koy am mu topp la topp sa ndey topp sa baay ba ci say sët da lay topp am nañu ay traitement yoo xamante ni da koy faj ci biir garab yooyu naan am nañu ay traitement yoo xamante ni da koy faj ci biti mooy pommade bi nga xamante ni moom ngay diwoo fépp fu ndoxum siti génn sa yaram traitement bi ça dure juste un mois traitement bi def nañ ci xewal kuñ ci yàlla boole rek incha allahu rabbi suñu yàlla booleeg yow daañ la mën a jàppale ci loolu traitement bi ci kàttanu yàlla un mois yàlla mën na la dimbale incha allahu rabbi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi lay ziar man maa ngi tudd Gora Tine dëkk Thiaroye Gare ziar naa la man la joxoon garabu émoride bi waaw wax dëgg yàlla garab gi baax na lool lool lool lool lool man de yàlla moom ci laa gis sama bopp maa ngi ci sant yàlla bu baaxit it dëgg yàlla ndax avant ma ko jël sonnoon naa lool waaye keroog bu ma ko jëlee même pas juróomi fan centre naa ci sama bopp bu baax te gis naa si njëriñ it incha allah rabbi fu ma gis tey kuy jàmbat émérite bu soobee yàlla dinaa ko yebal sa maa ngi sa numéro maa ngi lépp jërëjëf. numéro bi ngeen ñu mën jotee muy 77 169 45 45 77 169 45 45. wala ci beneen bu mu jokkoo bi di 77 160 93 93 77 160 93 93 woote leen pour jot suñuy ndaw pour am rendez-vous wala pour jot ci garab yi incha allah jërë ngeen jëf yàlla na yàlla barkeel te wéral cër yi ci kàttanu yàlla ak baaxama yërmandeem amiin Serigne Touba.